jafé-jafé yu dund metti na et dañu décider que vendredi inshallah muy journaliste di technicien képp kuy liggéey ci média jaru sa ngay xey journal du am Radio, du du wax télévision du génn et di fàttali en 2004 en juillet 2004 defoon nañu lu wax journée sans presse bañ jappé ma jàmbal c'était sous Ablaye Wade et c'était très bien réussi waruñu ko def tay di échec yagul dara ay semaine rek la la toll suñu mbokk Guinée yi def nañ journée sans presse réussir que même média d'état yi sax dañoo suivre mouvement bi ndaxte li ñuy xeex ko pour presse privée bi xeexuñu ko pour ma sàmba xeexuñu ko pour ma demba ñun ñëpp la pour ñun ñëpp la ba tax na ñi ngi ñaan vraiment journalistes yi patron de yi kenn bañ a wut prétexte pour bañam pour bañ a dugg ci xeex ñi ngi koy ñaan vraiment journalistes yi patron de presse yi ñëpp ñu xam ne qu'on est on est touché dans notre honneur et que kanam borom moo koy fajal boppam. ñun ñëpp am nañ ay contrat ñun ñëpp am nañ ay convention ak état bi waaye am na loo xam ne boo ko bàyyee mu jàll dañ lay gën a piétiner am na loo xam te ne euh, da ngay xool sa ngor sa honneur mu gënal la lépp et je pense que il faut que ñun ñu conscient ñu xam ne carrément que adduna bi yëpp ñu ngi seetaan te on n'a pas le droit à l'erreur euh, maintenant nag question nous aussi lo aussi euh, ñun ay organisation lañu patronat syndicat bi jeune reporter yi rek appel CTPAS les euh, radio communautaires UNPGS e ñepp waye du té aussi dinañ patronat ñu bëri ci métier bi ak xamal kat enjeu de l'heure pourquoi ñu wara journée sans presse bi ak pour lan ñom ñu war ci impliqué wu ba mu réussir lool quand même dinañ ko def parce que suñu warugar la et dinañ ko def inshallah leneen li nga xamne moy conseil bi ñu mëna joxé pour jeune reporter ñu rester impartial neutre moy ngeen di méfier wu ci politiciens ni ci wax deug lu ñu néew lañu et fu ñu toogee journaliste ñi ngi lay jéem manipuler muy pouvoir di opposition ñom ñep ñoo yem fu ci toogee ak journaliste ñu ngi lay jéem a buruxal information bo xam te pour sen njëriñ la léegi ma ëppal euh, ñaar fukki at ak ñett ci métier bi et ñu ne gis na leen ñu jaar fi et neexul ba neexul euh, mais li dem ci yàlla maam les doon wax mooy dëgg politicien mën nga liggéey ak moom waaye boo ko fréquenté rek mën na laa surxal mën naa dugal ci ci kàmb ba tax na information bu ngeen mënti jot surtout ci jamono jii nga xam ci ne dañuy dund li ñuy wax fake news di dund li ñuy wax manipulation à grande échelle mu jóge fépp nag information boo mënti jot te mënoo ko vérifier mënoo remonter source yi def recoupement yi tegal te xam ne lii jëmul kër boo ko toppee mën na dugal kàmb ndaxte boo ci juumee kat CORED mi ngi fi et mën na dem ba nangu sa carte nationale de presse dootoo exercer il faut que mu leer nañ donc nag bu denc ne journaliste nga nga respecté sa bopp respecté ñi nga xam te ne ñoom ñooy say père ak foo mënti nekk média boo mënti nekk da nga xam ne information moom li mu bindoo mooy vérification mu vérification matee nga xalaat ni lii kat boo ko génnee am na njëriñ pour population bi génne ko bul am loo ciit boo ko mënta vérifier nag bàyyil mu dem am na leen loo xam te ne aussi am na mooy que bu ñu yaakaar ne parce que ar am na xaralal yu bees que vidéo boo jot wala photo boo jot rek da koy génne noonu déedéet photo ak vidéo ñun suñu wàllu bopp am nañ ay outils yoo xamante ne daf ñuy permettre nga retracer nga xam ban appareil moo ko jël xam date biñ ko jël xam sax lieu biñ ko jëlee pour wax lay que ne maanaam tey jii nii information bu mu mënti doon mu di photo di vidéo di lu mu mënti doon il faut nga mën ko am li def li wax traçabilité top ko ba mu sës ba xam exactement fu mu soso ak nak lañ koñ nga def rek yoy yeb boo ko mënul mu dem et tay ala def na quand même outil yooyu ñu ngi fi et fim xam nañ ne aussi it am na wax besoin de renforcement de capacité et je pense que lolu dañ ci ñëwaat euh, xamal que ñi nga xam te ne reporter yi ñu nekk ci rédaction yi ba nga xam te ne fu fi jotee photo wala vidéo duñ ci def li ci war ba xam ba xam lii yaayoo na génne wala yaayoowul génne information wala information parce que kat euh, réseaux sociaux yi bokk na ci lo xam te ne sooxal nañ suñu métier bi trop mais bokk nañ lu ñu ci lu ñuy et je pense que buñu nit ñi am bu nit ñi commencé am problème confiance ak médias yi je pense que réseaux sociaux yi bokk na ci waye buñu faté né ñun suñu métier da am lu ko lal ñu tënku ci. ba tax na am loo xam ne ñemewuñ ko def mais ñi nekk ci réseaux sociaux yi amuñu problème boobu noonu lu leen neex génne lu leen neex def ñun nag bokkuñ ci ñooñu ndax suñu métier am na lu ko lal te bu dul dara sax am na respect bu ñu am suñu diggante population bi bu tax ne muñu mënuñu def lu ñu neex et it aussi du ñu fàtte ne aussi correct mi ngi fi loolu moom duñ ko réer xel benn yoon boo jalgatee correct mën na la tegaat ci yoon mën a nangu sa carte nationale de presse loolu lu mën a nekk la jërëjëf